ñu mayee ñiñ ko ñaane woon ni tant que ñi ngi fiy nekk maire ñuy organiser la coupe du maire pour la jeunesse de Tivaouane mais organiser wuñ ko rek pour jeunesse bi ak ASC yi Tivaouane dafa am ay sportif yu mag yoo xamante nii daf nañu seen ay jaloore biñ ci tollee mais tey ñi ngi accompagner jeunesse bi ku mel ni ñoom Lamine Ndiaye Curios ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne tey jii ñëw nañ continuer di accompagner jeunes yi je pense que mu nekk fête boo xam ni feetu jeunesse bi la feetu Tivaouane la mais feetu sportif yëpp la. dëgg la at mu jot li ñu mën ci ASC yi ñu ngi koy def mooy subventionner leen organiser leen coupe maire bu jotee parce que xëy na li ñu yéene yëpp si Tivaouane doole bi ñu am si municipalité mën a gu ñëw may ñu def ko waaye nag am nañ yéene bi. mais yéene bii li ci jiitu woon moo doon éclairage bi defoon nañ ko yàgg na am na benn terrain multisport bu ñuy tabax si situ école 1 bi waaye am nañ yaakaar que at mii di ñëw suñu terrain bi am nañ yéene ñu gazonné ko defi piste d' athlétisme terrain Euh, basketball ak terrain handball benn terrain multisport ñu aussi yeneen discipline yi yi nga xamante ne nii mooy les arts martiaux ak lu mel ne handball tey jii may rendre omage bu baax a baax l' équipe handball de Tivaouane bi nga xam ne mi ngi nekk première division rawatina jigéen ñi nga xam ni lu ëpp ci équipe nationale u Sénégal ay jigéen yoo xamante ne nii si équipe bu Tivaouane bi la ñuy la ñuy handball fàttewuñu tamit basket bi nga xamante ne nii ay ay jàmbaar lañu xam nañ ni yéene bi mi ngi fii ci municipalité bi yéene bi mi ngi fi également. ci état bi ndax le ministre Matar Ba xam naa ni xelam bi nga bu baax a baax ci ci Tivaouane mais nag euh, euh, programmation état moo nekk loo xamante ni nii lu lu yomb la waaye am nañ yaakaar que ni ci 2017 bii dinañ amaat yeneen nouvelles yu neex yoo xam ne dinañ ko indil sportifu Tivaouane continue nag am yéene di leen accompagner fu ñu mënti nekk muy football bi muy beneen discipline boo xamante ni nii ñu ngi koy pratiquer ci biir dëkk bi